ci benn bor sa fii aw ma ci benn bor birima moo ma jàppale xam nga ah. banque boobu nekk fii hmm. banque ma yaa ngi koy dégg moo ma jàppale aw ma ci benn bor wax nañ ma ni may def ba nga xamante ne duma am benn tolof tolof baax na waa moom mbaa sa tante duñ dinañ képp ku bëgg a jug liggéey te jom rek tax laa jug boo fa demee ñu wax la naka ngay def te dara mettiwu ci ah. waaw ah loolu koy baax na waaye Amina nag gis nga Dakar dafa rëb torop da ngay ay léemaay ah, man xam nga man man xam nga man man dama di mag lu ma mag xamoon naa ko waxoon naa ko laa. dëgg la dafa am lu ma la indaale woon. Ah, dëgg la ah, jàppal boo doon gis nga lii. waaw tax ko ci buntu bi. Mhm. pour yi di ñëw. mucc ak mucc le mhm. mucc. mucc rek. dëgg am na loo xam ne nag sëriñ. waaw ah, paakanka waa wax naa ko na la defaral loo xam dañ koy. na ma jàppale cat nag daf maa xaw a toog. cat da lay say bopp. temps yii dama doon oqatu. jàppal loolu. lii daal léegi ma takk ko fii. mais xoolal sant doguma la mais kuñ naa nit am demi ñëw kilifa la ci dëkk bi. Ah. xaw ma famem nag fu ñu nekk ak ay mbokkam mais am na lu mu ci def. am di mignon am di mignon ah, benn xale bu góor xaritu président TTT la. kuy TTT. président Mali bi. Ah. Mali xam naa du ñàkk sax bu fi ñëwul tey. dina ñu fekk kër ga suba incha allah. Mali ci loone vous xamul li muy wax sama sama xarit la. ma daan jàppale daal sama rakku yaay lañ. Ah, Ibra ñii samay tante lañ. Ah, tante ñii ñoo fi nekk daaw ba ren di ma jàppale. waaw waaw doom la suñu la. ki wax sa mbaaxu waay wàññiwul dara sa. dëgg la waaw eh, la. café gii ngay sotti ndox rek mu seey xam nga ko. Ah, tante nag yow dafa mel ni da ngaa branché ni nga jéggi sant lépp. waaw tante maa doo xeesal. déedéet. kon jeex na kon an naa. da ngaa bëgg a naan. man sama tànk yi métti rek lay def métti tante toog leen ma servir leen ngeen da nga que Bété c'est une femme d'homme quoi. c'est une femme tante. lii ngeen jàkkaarloo nag saf na ma parce que gis nga li gën a neex ci àddina di defar di gis say mbokk lii dama ko yàgg a dem ba jàkkaarloo gi yéen di def ba mu baax yow foo ne dinañ waa ana waa kër ga xam naa ne fi ne nii ña nga jaaxle ci man dañ na jàmbaar daw dafa wuti doole waa mi ñoo gis nga de li nga def gis nga ni nga ma sagalee ñooñ samay rakku yaay lañ am di kii mooy am di tànta ah, kii ah. laa la doon wax léegi mooy miñoo moo dëkk ko mooy xaritu président ba am di toogal tànta kii de liñ fiy gis yëpp gannaaw yàlla ak yonent beeg ma moom mii la hmm. parce que mooma woon fi may jaar waa am di naka la namm naa la xanaa kontaan nga amutoo dara lay gis nga gis nga waa Samsung li ñu def. ñaata ñaata yi fi mu ne monté bi bii. ak yi nekk ne ci coin yi. ci coin yi ah. mais télé bi monté guñ fii lii nag. monté guñ frigo yi benn lañu indi ak micro onde. ñaar laa leen waxoon ñaar. ñaari frigo. ah. Mbatu Mbénaane. xam nga lu ma la wax kii déggul bambara. déggul dara de déggul bambara. gis nga bii. xam nga bii moom kii wóolu ma ko de. te mu nekkoon yàlla def dafa xam ne kii moom. dañ ciy am xel ñaar tante kii dafa baax de. kan kii. wax ko yow yow lan nga tudd mu ne. mu wax ah, Mali. mu ne Mali la tudd dafa ah mi ñoo. tante deux minutes ma ñëw xam naa da leen di teral. ñëwal. ñoo sama ñëw yaay. tante moo leen jox lii. ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf baax ah. kii de xoolal man su ma la ko waxee gëm ma xamu leen ma si benn caaxaan. Ah. lii moo la ko jox te teraanga kenn du ko delloo. waaw dëgg la kay dëgg la jërëjëf jërëjëf. Ah. billaay tante moo la ko jox. Eh, eh, eh, ah. binta téyel ko ba xel mi del si ma ñëw xam naa da leen di dool lii yomb naa fay kenn du mi loo bëgg. man j'aime ah, neex na la. Ibra de kon da deel ñëw chaque jour. Ah, mi ñoo yow loo bëgg. loo bëgg rek dañ la koy defal. kanaa xamoon ne man li muy def nii man daf maa neex. moo lay dundal. lii lay dundal li mooy acoustique. yaa. yëkkati sa baat kon Ibra na gën a fort Ibra yuuxul. tante mën ngeen defaale nii. tante kii de bu ci am benn xel ñaar tante de kii lu dul xoolal ko ba pare dafa xappi. amante baby you want us again oh fun yeah ay ay tubaab sax xam naa la invité nii tey. non yow mooy da ngay defoon quoi. si moom te sonal ma ay affaire de lijjanti. maa ngi déglu dañoo ñàkk ci sax bu leen gisee nii ñu soloog seen nii ñu taxawee sax xam ne dañoo bëri xaalis. ça va bien ça va ça va lii du dara nag fii octane moo fi merci beaucoup sama rakk yaay leen dañ maa seet si woon xarit xaritam la. kii mooy baxaaw mi mu doon xaar. nuyu leen sama rakk yaay la. Astel. Euh, ça va. ça va merci et vous ça va je vais très bien merci. ça va bonsoir Astel. na nga def et vous. ana sa yaay. ça va merci. ana sa papa. ça va très bien. déggul olof xam naa ganam la. sama gan la waaw ça va. Astel toog leen assis. assis bi bi bienvenue. merci beaucoup Asel. mais Baxaaw. yaa ngi ci jàmm gis nga sa jigéen de. Ah, kontaan naa kontaan naa gis nga. franchement kontaan naa. pardon Poté. Me kamante, respect all my friend. Who depend the magic like a cold darling. If you love me, start don't tell me in then. And back up and the man boy, ya pay kat lu darin. Foofu laa koy yem, foofu laa koy yem. Grand. artiste noonu lay def lépp doo ko eggale. waaw doo joxe lépp doo joxe lépp voilà. mais si la nekk affaire yi si la nekk. mais yaa ngi ci jàmm. fii moom fii bu baax télé bi suba dina tàkk la. bi bokkul ak euh, seen gain boobu dóoroon aatu bu ndaw boobu fii la nekkoon non. peex. non du kam mooy peer. peer bu bu xaar. fii la woon wala bi bu magam la. foofu lam xat d'accord aatu fekk ko fa bëggoon kaa rey tax ñu jël fu mag fi nga xam ne lu fi mënti di amit gaañante du am di nga dal fu la neex am di bismillah damay dem aw ma toogee la moo nekkoon mais léegi wuy ma euh, attends avant ñu commencer réunion bi attends tant dafa am loo bëgg. damay observer rek. Ah, fii de jàmm rek fi am. dama nga toog fee nga consommer après. Eh! dama rek dugal. jaay fay même ba xoolal nee nañ ko nee nañ ko dóor mën koy saaga waaye ko dóor di màdd gajj nag bokku ci nag ak kër Rasulullah mais gars yi xoolal waaw jaajëf toogal ne après ñu ma meñ ko Ibrahima mu nga bañ a dem xaaral man dama laa soxla waa dama nga bañ a dem maa ngi topp sa tante dem waaw mën nga leen a kii aale waaw maa ne fa yi xoolal yéen laay kóosal quoi maa ngi ci loolu bon donc condition bi du lenn lu dul problème mu visa yi ah. parce que seen tournée yi mhm. dama cee bëgg yóbbu gars yi quoi mhm. parce que am na ay partenaires yu nekk ci kaw. yoo xamante ni mais ñoom dañu la bëgg utal yow maison de Dix. d'accord bon donc bi ma waxtaanee ñoom bon nee nañ ma il faut que man parce que yéen laa woon. Mhm. moo tax ma jox la fii ci jargot bi rendez-vous. est-ce que la. donc nag bon léegi par la suite daa ngi discuter ak ñoom affaire yooyu noonu ba lépp c'est ok. d'accord léegi nag bon ma man gisuma kenn ku dul yow nag. Mhm. yóbbu la. est-ce que la malheureusement léegi c'est ok quoi. d'accord voilà léegi na dama ci bëgg sërxaale ay quelques boy yoo xamante ni ñu mun a dem. première hmm. partie bi moom c'est assuré. yaa kii moo koy def sa waa ji moo koy def. non yow yaa koy joué moom dina ko joué sax amul problème. d'accord moom dina bokk ci ñu koy joué. ci ñuy joué première partie ok d'accord. waaw damay wax. mais alors ça va. ça va ça va bien. et les affaires Astel tudd parler, parler depuis tout à l'heure, je comprends rien de ce que vous dites. Bon, je le dis, euh, en fait, euh, on est en train de moom sama boo bëggee dégg moom mooy gérer tout suñu groupe bi donc moom moo ñu jàppale ci yu bëri donc bi moo oowee mhm. bëgg mooy ñëw man kese donc jibi dafa voyagé ma jógee gàllu si moom ma ne ko bàyyi ma indi ko donc expliqué naa ko fan lañ doon dem donc ce serait bien nga expliqué ko aussi vite fait mu comprendre ko ci français après ñu continuer ñu vite fait mën a il parle pas wolof non non il parle pas wolof euh, Astel euh, tu sais euh, voilà on a discuté tout de donc euh, on a beaucoup de projets euh, devant nous pour créer à niveau extérieur donc euh, Assel euh, je voulais aider les sept groupes avec les groupes de de les les un peu bas je voulais ah, développer les groupes de toutes exactement euh, maintenant on a discuté pour amener là-bas les gens j'ai déjà j'ai créé une maison de disques avec les mon contacts là où c'est eux quoi. Vous êtes Mais on est séparé de Croquis. C'est ça mon problème. Ah, c'est une belle initiative. Ah bon. Vous avez une maison de disques là-bas? Oui, j'ai une maison de disques et on est tous euh, euh soulignés, on est tous d'accord les les les formalités avec les tous les contrat énergie ah d'accord et c'est Baha le monsieur là-bas derrière. avec les dames là. Ah, ah, ah. c'est le dame quoi. pardon excuse-moi excuse-moi. non je je vous faites partie du groupe. Euh, tu dois partir en benn groupe bu ma kenn sosal. bokkuma ci benn groupe. waaye yow kii sama doom la. maak dayoo bokk ndey ak baay bu ma kenn sosal di ma yóbbu. loolu defal naa ko mère man lay wax eh, man. nee na da ngaa ja nee na tu es très belle. allo Djibi. <coughs> <coughs> man ni ñëw na de gérer passeport rek mi ngi si yoon tekki maa ngi nii di clôture rek génneel passeport yi rek booy te ñanlu la <laughs> baax ma léegi-léegi jiw laa doon waxal dégg waaye moom war a waaw voilà léegi kon c' waaw man kay pare nañu ok gars la ñuy dugg rek. nekk euh, a xam gars yi ngay yóbbaale naka lay demee man damay ñëw ak passeport rek ñu dem après yow yaay gérer. maay lijjanti lépp maay lijjanti visa bi lépp. man loolu moom daal d' accord naa parce que du ma def plus de vingt ans si musique bi et puis mooy loolu man moom heure boo décidé. Hmm. yaa ngi sama numéro oh foo mu on nag mu wuyu la te ñeme naa la ci lépp. voilà kon ñeme naa la ci lépp. la kii. Ibra waaw Ibra. kii neex na ma trop am de. Ah. Hmm. mais kii mooy Ibra. il fait bien acoustique la musique de acoustique doux. Astel on y va on voilà on y va on va régler le problème. am na bàyyi ñu dem d'accord xam naa ne. mode de discussion quoi. Euh, oui. Ouais, mais moi, c'est bon, pour partir. Astel, on va partir là. Il y a Simon qui nous attend, on va partir. Ouais. Ok bon, avec Amdi qu'on a. Je vous accompagne. Merci. Amdi, da ngay dem. Non, damay gunge sama gan yi. yaa ngi ñëw sama gan yow lay xaar sax. Euh, Poté. Ah kontaan nañ trop xam naa dañ ci dara fan yi inshallah. Inshallah. Allez tatam ñu ngi dem voilà. Jërëjëf. Allez merci beaucoup tatam. Est-ce que tu pars? Allez merci beaucoup. Salut à votre famille. Madame, je comprends pas ce que vous dites depuis tout à l'heure mais apparemment vous avez ah, pas trop confiance au gars. Confiance. Euh, OK. Aliou merci beaucoup incha allah Aliou merci beaucoup. da lay jox ay confit bu ñëwaatee. jël ko si am di rek. Ah. jërëjëf. yow mënoo nekk nit yow dama dama bëgg xam tax fii nit ñi mënuñu nekk nit loolu laa bëgg xam. waaye am ah. yow lan la yow. I know I know no no no. I know. You're a capable bound. You know it's a game man. ka waaye xool ma yow loo jënd ay non yow kii wax affaire yu baax dama dama leen am yow dama jëm a dëgg nii mais yow booy sama rek déggul li ma la wax man sama amee ay gan ay kilifa dama bëgg nga régler man dama bëgg ay affaire yoo xamante soxo soxo je ne sais pas booy da ngaa dof kii dooral dooral rek dooral dooral ah bokki dooral dama dugal dama dugal yow dooral bàyyi ba yow damay xeex eh ah booy jëm loo. damay bul ma yàq kii ay nar kese la fi indi. bul ma yàq du nitu dara. déggoo mu ne xale kay am xale yu mu yóbbu. tus tus la tekkiwul. tàllal waaye laa wax. gadaw wee. gadaw wee. émission bi sàcc na. sàcc pire. yaa mooy sàcc kii. boo ko jàppee jàpp ko sàcc boo ko bàyyi bàyyi nga sàcc. déggu may nasaraan waaye li fi ay nari kese la. dafa soxla yow yéen yow. ah ngay Amina ay Amina fa fa yare woon Amina. Amina yaa judd si. man maa ngi leen di mën a yow kii ñëw fi di nar rek nga nga nga nekk fi di gëm naan kii moom daa bëgg xaalis yow laa doy waar doy waar benn waar yow yaa doy waar rek gis nga picc tool mi kii nu mu tudd xanam jigéen bi picc tool tudd wala la dafa soxal ko dégg mu ne même la la kii ki mu toogal fii ah. mu ne ko la santé il a accompagné pour le parti Angleterre dama fenn kii daf nga rek parti Angleterre bala fenn dama fenn de du nga yóbbu sax parc ay dafi kese nga fi dajale tante man jaxle naa de lii du dara kii trian la ko jàpp jàpp trian ko bàyyi bàyyi trian ah waaye man fu ma jëm ak sama tante ak kañ lay am di xam waaw waaw mi saxuloo yàpp la ma chérie bongo bi moom jaru ko soo ko gën danga dégg daaj mbax na fi daaje